yëkkati naa gaa yaa nga tal politique ba de tribune yéen a ne président Macky Sall kaay ma am na opération boo xam ne ay agent yu commissariat bu rëbës day ñoo ko doon def téeméer ak juróom benn fukk ak ñaari kilogramme yoo xam ni yàmbaa la te boo ko xaymaa daal mu doon fukk ak juróom ñaari million daal dinañ koy jàpp ginnaaw sa palais boobee nga yëgee ko noonu yéen a kaay dee bi ne ko taxawal de ma xamal la ni hôpital Aristide Le Dantec day daal dinañ koy ay néew ñu fas leen yéen nag jébbal seen borom laata altine bi yéen a kaay bi ne ma ñaar fukk ak juróomi ay mag lañu am na ci juróom ñoo xam ni bàyyeekoo wuñ réewum Sénégal kenn xamul seeni mbokk fu nan leen di denc benn par benn laata altine ba ñu jeex ndax morgue ba ci boppam faaw ñu wa évacuer ko ngir tëj ga mën a mat bés bi la journée waa pavillon spécial moom naka lay demee fa nga xam ni nag ñin tëj kaso bu ñu woppee fa lañ leen daal di dugal am sécurité gu doy ñu mën leen faa faj ñooñu fan lañ leen transféré Sud Quotidien mel ni ku naan maan xanaa kalaa transféré service transféré liggéeykat yi ba noppi ñoom liggéeykat yi démb day am na de service boo xam ni daal dinay génn xam xamal leen ni nag nañu toog seeni kër laataa nag ñuy génne beneen note de service buy wane kenn ku nekk fan lan la affecté yéeni kaay bi daal di may xamal ne liggéeykat yi de am nañ dëgg ci kaw nguuru Sénégal lan doon wax ne danoo patam patamee toj gi lii nag daal na koy firndeel tribune yéeni kaay daal di jox kàddu Mamadou Lamine Diallo mu daal di xam leen ni am nag dil goo xam ni famille fay Sall ñoo ci nekk ci ginnaaw ci ñetti hectare hôpital Aristide Le Dantec yoo xam ni jaay nañ ko Mamadou Lamine jallo ne xam nañ seeni borom de na leer wax bu jotee nag daañu ko def le quotidien le quotidien ne doxalee en tout cas xamee leen ko nii am nay service yoo xam ne moom laataa septembre bii dootuñu doxati ci hôpital Aristide la doon teg direct news daal di jox kàddu professeur Moustapha Ndiaye mu xam leen ni lii ab drame sanitaire ak social la boo xam ni Sénégal mësu ko dund moom professeur bi ne nguurug Sénégal day dafa dogal ne dañuy tëj hôpital Aristide la doon xaaj bi la ñu jël tabax beneen xaaj bi ab privé ko moom dogal boobe daal di nay garaaw garaaw goo xam ni ñoom ñi ko def sax mënuñu koo natt ndax nag loo ci mënti dégg hôpital Aristide Le Dantec patrimoine historique la symbole la bokk ci taarixu réewum Sénégal bokk it ci taarixu médecine moderne fii ci réewum Sénégal bépp projet boo xam ni war nañ ko faa teg war na fa bàyyi empreinte taarix gi professeur Moustapha Ndiaye ne grave na grave goo xam ne nii lépp loo xam ni pàcc la ci réewum Sénégal dina ko laal ndax nag hôpital Aristide Le Dantec daanaka fa la lépp di bàyyeekoo moom professeur ne ba nuy tëj l'hôpital bii ànduñ ceeg yërmande nañ ko defee du ni te dëgg-dëgg mën nañ te jël seenu temps moom nguurug Sénégal nag lépp lu ci responsabilité morale professeur ne moo koy gàddu professeur de man day damaa jaxasoo waaye nag laaj ba may laaj lan moo tax médecin yi ak universitaire yi ci boppam ne patt ci coow lii ndax professeur nee na nag coowal tëjug la daan teg lii coow mënu koo gën a rëy saa si temb ci réewum Sénégal turbine ne malade yi jaaxle nañu de yéen i kaayib dee média bi ne ma boo ca nga wax ci président Macky Sall ak gaayam nga xam ne APR moom saa tembe mi ci yoonuk tastasar turbine ne ma président Macky Sall di joué kartam yu mujj coppet tojee lépp waaye tam ca na muy tabbee njiital président assemblée nationale yéen kaay bi ne ma bari na ci ñoo xam ne nii tembe ay mer ngemb lañu mer nañu ba futt waaye wane wuñ ko di xaar nag yan dogal la président Macky Sall di jël ñu mën a ci kawam ay ministre ak i DG tribune yéen kaay ne nañu xaar de ndax mënoo wax ba président Macky Sall du leen fi jëlee l'enquête quotidien ne lii de moo tax premier ministre bi ñu tardé ko nommé président Macky Sall nag dafa nekk saa si tembe ci manœuvre di xool nag ndax itam ku ñëpp ànd lay jël wala it ab chef de guerre lay wut moom président la turbine yéen a kaay ne ma bàjjo bi bilan am day yi daal di koy sanctionné laaj ba samp na Walf Quotidien ne loo ci mënti déggit bitim réew sopp nañ ko de moom président Macky Sall waaye biir réew mi daal moom dara te sax moom président Macky Sall yoo xam ne dëgg-dëgg ña ngay doxal te sigil nañ ko moom président Macky Sall ci élection législative yii moom Abdoulaye Dieye bu sigi jot na moo sowe nag honneur ba Benno Bokk Yaakaar ca diwaanu Thiès centre de wotam bureau yëpp dafa daal di am ndam te moom dong mooy leader bu am lu ni ca diwaanu Thiès ñenn ñi moom dañoo diggee diggee ba maar day taali tey ji ba ñuy meelu suuf àttanu leen turbine yéene kaay ne moo ne dee bàjjo bi moom président Macky Sall bilaam daal daal dinay baax Walf Quotidien yeeweeg walu day lay xeeñ neexul tas tasar intercoalition bi ca la jëm ndax nag bu doonub sëy la tas gi moom mënta wal ñàkk Walf Quotidien moo ko xamle réew mi Quotidien daal di may xamal ne moo ne day intercoalition bi ña nga gën a boole seen doole di xam le nag ñetti groupe parlementaire lañ fas yéene taxawal ñetti groupe parlementaire yooyee dina tax ñu am doole ci assemblée nationale bokk ci conférence yu président yi am ay avantage ci wàllu koppar ak matériel waaye tam temps de parole bu ñetti groupe parlementaire bi buñ ko amee mënees nañ ko séddoo ak Benno Bokk Yaakaar importance ba mu am ci assemblée nationale le soleil yéen kaay ne boobu waa au conseil collectivité territoriale day ña ngay dal ci kaw intercoalition yeewi wallu ndax boycott bi ñu ne dañ koy boycotté élection yi ministre Abdoulaye Seydou Sow ci Sud Quotidien ne ragal rek gars yi boycotté wuñ dara dañoo daw sàqi libération yéen kaay ma waxal ci Econ City ba ñu ko taxawalee ak tey ñax ma sax daal dinañ muur panneau ba faf ci ku ne woon la nga am ci koppar raw na budget bu réewum Sénégal te phase bu njëkk bi juróom benn fukk million la mënoo ko jeexal bañ ñax maa nangu faf projet ba turbine yéene kaay ma nan bañ sangat réew mi rek barki démboo njaay juróom benn ci xale yu góor yoo xam ne dañ doon sëy seen biir lan jàpp ci plage bu bese yaawo libération yéene kaay ne ma fii ci Parcelles Assainies ñaari xale yu góor yii la ñu bett seen néeg ñi sëy ay une di du matin la dëkk yi dégg ay tàqamtikoo ki siicu ba ñu ubbee néeg ba la ñoom ñaar ñëpp sàq daw moom es Diouf ba ñu ko jàppee dafa xamal takk der yi ne leen góor jigéen la daal di boole ñeent ñoo xam ne ay partenaire am ba ñu ubbee néeg bi yéen kaay bi ne ma ay préservatif a nga fa woon ay lubrifiant yi yombal seen sëy ma nga fa woon ay maquillage yu jigéen a nga fa woon ay perruque ma nga fa woon lii nag dëgg-dëgg mooy ak lu mën a am mbokk yi nan yar njaboot gi seetlu leen te di yendoog jàmm